Ousmane Sonko ku ñuy yàgg xañ ay droit la ci réew mi xaw ma dafa nekkul sénégalais xaw ma dafa doon loo xam ne ñoom mënuñu ko wax wala Ousmane Sonko koo xam ne la rek euh, maanaam kumba amul nday la ci biir réew mi muy chef religieux muy keneen ak keneen amul kuy taxaw jamono bii di évoquer li nga xam ne moom mooy droit yu Ousmane Sonko am droit nag. yéen a ngi teewlu IYAT TV salaamaaleykum mbokk internet yu IYAT TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen wax ne ngeen gën a abonné rek ci chaîne bi nga xam ne moom moo nekk IYAT TV tey nag dafa am benn taxaw seetlu bu ma bëgg a def boo xam ne daanaka tàmm ma sax di koy def lu baree bari wala boo gëj naa ko def euh, jëme ci li nga xam ne waa DGE wala waa administration bi te mooy état def na ko. jëmee ko ci ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko euh, li waral euh, ma def taxaw seetlu boobu nag damaa gis euh, ñaari yoon yoo xam ne ki nga xam ne mooy mandataire bi dem na ko foofale nga xam ne mooy DGE ngir récupérer li nga xam ne mooy fiche de parrainage ñu bañal ko ko bañal ko sax ak sem ndax gis nañu que démb mu nekk 19 muy jeudi 19. ki nga xam ne moom mooy Ayib dafe dem na fa ñu wax ne ki nga xam ne moom mooy ténor Thiendella Fall moom du recevoir euh, kenn ci jouru mardi bi ci jouru jeudi bi laa bëgg wax mais bi ñu xëyee ñu gisaat euh, ki nga xam ne moom mooy Ayib dafe ba tey mu wëlbatikuwaat demaat foofa nga xam ne moom mooy direction euh, direction générale des élections bi mu fa demee ñu gis ne benn benn Euh, commissaire moo taxaw ne ko doo dugg doo fa dugg d'ailleurs mayuñu ko sax accès muy wax ak benn agent wu direction bi loolu nag di loo xam ne mbir la moo xam ne état ñoom ñoo ko def waaye administration ñoom ñoo ko def muy erreur wala muy loo xam ne sax ak maa tey goo xam ne nemmeeku nañ ko goo xam ne ñoom def nañ ko démb defaat ko tey jëmee ko ci ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko li waral dëgg-dëgg nag. ma taxaw bu bëgg a taxawaat ci loolu parce que dañu gis ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall dafa waxoon bi muy euh, wax ne du nekk candidat bi muy def euh, déclaration boobu wax ne moom dafay renoncer wu ci troisième mandat waaye dafa waxoon ne dina def lépp lu man pour appliquer li nga xam ne moom mooy décision de la justice ginnaaw loolu avant ñoo egg ci justice gis nañ mu appliqué loo xam ne du décision de la justice waaye décision ministre de l' intérieur kii Antoine moom moo koy décidé woon muy euh, génne euh, ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci liste électorale yi loolu nag avant sax mu ko doon def lu ñu yàgg euh, nëbbatu di ko defar la di ko togg ndax it bu ñu fàttali ko Ousmane Sonko ci benn déclaration benn ci ñaari déclaration yu mujj yi li mu wax mooy ñoom ñi ngi waajal kii di Antoine Diome kii di Ismaïla Madior faal ñi ngi waajal ngir génne ma sama tur ci liste électorale yi ngir du ma mën a bokk ci élection yi di ñëw muy ay pexe yoo xam ne ñu ngi ko doon nas ginnaaw ba nag delluwuñ ci ginnaaw ndax man damay wax jamono bu nekk ne li nga xam ne moom mooy nuyu Ousmane Sonko jëme ko ci état bi ñoom. duñ ci bàyyi dara luñ mën dinañ ko def duñu reculer euh, un pas lu dul que éliminer nañ Ousmane Sonko ba mu bañ a mën a bokk ci élection seen problème yëpp mooy Ousmane Sonko nekk euh, candidat seen problème yëpp mooy Ousmane Sonko nekk candidat donc comme moom dafa waxoon ne dina faire tout ngir appliquer les décisions de la justice donte kañ xam nañ bu baax que ni ngir tëj Ousmane Sonko tax muy wax mais comme dafa waxoon dina def lépp ngir appliquer euh, décision yi nga xam ne dafay jóge ci justice justice moo tracé li nga xam ne moom moo ñu delloowaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ci fichier bi ñu delloo fa waat turam ba pare ordonné ko ne nañ ko def te mu gaaw donc mais dañu gis ba tey que ne bu fekkee ne euh, justice moom dafa tracé lu arrangé wul Ousmane Sonko wala luy nuyu Ousmane Sonko ñoom dañuy euh, def tout pour gaaw ko appliquer gis nañu décision bi nga xam ne joxe woon nañ ko ci àttewu Mambay ñaaba biñ ko defee automatiquement mayuñu sax mooy àtte bu njëkk ba biñ ko daanee ba pare wëlbatiku Mambay ñaa taxaw wax ne am na satisfaction ci àtte bi. quelque minutes ñu supprimer loo ko loolu nga xam ne moom mooy poste bi mu defoon mu def ne mu waxaat leneen ne dafay def euh, dafay def appel appel boo xam ne ñoom ci biir 15 jours ci biir 15 jours voire 17 ci la ñu def atte ba wëlbatikuwaat attewaat appel bi encore muy ñaari atte yoo xam ne matul 20 jours. ñaari atte yoo xam ne wutul vingt jours ci koo xam ne atte nañ ko ba may ko délai wu un mois pour mu def appel moom Ousmane Sonko respecté wuñ loolu pourtant moom moo wax ne dina faire respecter euh, les décisions de la justice moom président Macky Sall respecté wuñ loolu aussi bi nga xamee ne cour suprême wax na li muy ni ñu koy waxee Antoine Diome def na li muy def DGE dafa taxaw ne du ko jox fiche de parrainage parce que turam nekkut ci liste yi ci li nga xam ne moom la ñu am comme information que amul benn mandataire boo xam ne dem na DG di euh, laaj fiche de parrainage ñu lay laaj ndax xam sa candidat mi ngi ci liste yi xam sa candidat turam mi ngi ci liste amul seul Ousmane Sonko mooy koo xam ne mandataire am dem na ñu koy laaj ndax Ousmane Sonko mi ngi ci liste yi loolu nag di loo xam ne lu doy waar la loo xam ne mi ngi nekk di am jamono bii ci fii ci Sénégal moom président Macky lu ma deñ di ko wax moom dafa waxoon fii ba tey li may wax boobu ba léegi faire respecter les décisions de la justice tey gis nañ ko sax jamono bu nekk dafay wër di wax naan ñi bëggoon a jël réew mi te jaarewuñ ko ci élection ñi nga xam ne dañu bëgg a jël réew mi ñi nga xam ne dañu bëgg a déstabiliser réew mi ñi nga xam ne xeetu wax yooyu la ñuy gis fi nga xam ne dafay dem di fa tàggatoo gis nañ ko mu taxaw France 24 yi wax ko fa gis nañ ko mu taxaw ak ay niti boppam wax leen ko gis nañ ko mu dem ci ay kër kilifa diine di fa wax euh, ba tey wax yu mel noonu faire croire au gens que Ousmane Sonko bi bëgg a jël réew mi moom dafa bëgg a jël réew mi ci fitna dafa bëgg a jël réew mi fekk réew mi déstabilisé wu na maanaam réew mi dugg na ci guuta dafa jël dafa bëgg a jël réew mi te du ko jaar ci voie électorale kooku nga xam ne fenn fu ne wëree nga ko fa joobee nga ko fa waxal nga ko fa ay wax yoo xam ne ñépp xam nañ ne bu ñu xoolee li nga xam ne moom mooy li xew jamono bii dañuy xam ne loola nga doon wax noonu yëpp day dàqu moom du wax ju wér c'est faux koo xam ne yoon bi nga xam ne wala boog tous les voies yi nga xam ne. yoon may na ko ko ngir mu mën a nekk candidat yëpp évoqué na ko moom Ousmane Sonko def na lépp lu ko yoon may ngir mën a nekk candidat donc bu ñu waxee candidat mooy être dans les listes pour mën a participer dans les sélections donc loolu mooy li nga xam ne moom mooy li am moom mi nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko def na lépp bi nga xamee ne taxaw na ñoom ci seen ay complot ci seen ay ci seen ay programmation yoo xam ne def nañ ko ci lu du jaxarul yoon ba taxaw ne tas nañu parteem wëlbatikuwaat taxaw ne génn nañ ko ci li nga xam ne moom mooy liste yi nga xam ne mooy liste euh, électorale yi li ko yoon may pourtant mënoon nañu woote xeex depuis un certain temps ngi nii dégguñu benn euh, ma maa ngi koy laajte parfois invité dégguñu benn yoon benn leaderu Pastef wax ne nañu wàcc ci tali bi xeex alors que daan nañ def yu mel noonu mais euh, depuis un certain temps dañuy gis ne li ñuy wax mooy nañu topp justice nañu déglu baas bi nañu déglu président Ousmane Sonko nañu xaar nañu toog dégloo yooyu ngay dégg su ko defee ñi nga xam ne aussi nañu déglu les avocats donc les avocats topp les procédures pour mën a bokk ci élection yi nga xam ne moom mooy euh, yu 2024 yi donc procédure yooyu ñuy topp jaar cour suprême cour suprême dëggal leen ñoom désee ci lu dul dëgg dëggal leen ci loo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne jaarul yoon ñu dem fële nga xam ne moom mooy ca Ziguinchor fekk juge bu indépendant bu moom boppam mu àtte li nga xam ne moom mooy dëgg wax ne nañu delloo Ousmane Sonko ay droit am Ousmane Sonko ku ñuy yàgg. xañ ay droit la ci réew mi xaw ma dafa nekkul sénégalais xaw ma dafa doon loo xam ne ñoom mënuñu ko wax wala Ousmane Sonko koo xam ne la rek euh, maanaam kumba amul nday la ci biir réew mi muy chef religieux muy keneen ak keneen amul kuy taxaw jamono bii di évoquer li nga xam ne moom mooy droit yu Ousmane Sonko am droit nag buñ ko waxee du loo xam ne li mu sekk ak administration comme li nga xam ne bépp doomu Sénégal am nga ko. ci wàllum ñu ñu ñu ñu jox la sa wàccuwaay ñu jox la sa respect bi nga amee maanaam ñu gëm na yow mii doomu réew mi nga ñu gëm ne yow mii ku bëgg réew mi nga ñu gëm na yow mii bëgg réew mi avancé nga ñu gëm ne yow mii maanaam ku respecté waa réew mi nga donc loolu yëpp dañ ko bañal Ousmane Sonko ñu leen di déglu ñoom. jàpp nañ ne Ousmane Sonko du du koo xam ne doomu réew mi la Ousmane Sonko ku bëgg taal réew mi la Ousmane Sonko du koo xam ne maanaam ku yàq diine ji la Ousmane Sonko kuy nangam ak nangam alors que c'est faux c'est euh, dañu jël dans l' dans l'inverse wax li nga xam ne moom mooy contraire ñoom li ñuy taqal Ousmane Sonko contraire ba la Ousmane Sonko doon bu dee bëgg réew mi ku ko gën a bëgg amul. bu dee doomu réew mi ku ko gën a nekk doomu réew mi amul yàgg nañu dégg euh, naka la nekkee doomu réew mi diggante euh, sidd ak euh, centre bi muy bawal ba ci Fuuta ba ci Ziguinchor foo ci laal Ousmane Sonko mbokkam ma nga fa bëgg réew mi moom kenn waxalatu ko ko moom moom kenn nattableetu ko ci Ousmane Sonko li mu def répété ko sax day booy ay nopp donc loolu mooy li nga xam ne. lu lu ñu war a taxaw seetla moom président Macky Sall mu taxaw ne Ousmane Sonko euh, dafa bëgg a réew mi te du ko jaar ci élection dafa bëgg a jël réew mi ci ay fitna dafa collaborer ak ay euh, jihadiste dafa euh, collaborer ak ay leneen ak leneen ñoo xam ne ay force obscure yooyu nga xam ne sax daanaka gëj nañ ko dégg parce que leen Euh, ay dossiers yoo xam ne ubbi woon nañ ko fi yooyu noonu yëpp ñu wax ne dafa bëgg a jël réew mi ngir loolu alors kooku nga xam ne wax nga ko ci moom loolu yëpp ne moom la bëgg a jël pour loolu moom taxaw na évoquer justice moom taxaw na jaar ci yoon ngir ne damay dem élection fi nga wax ne yow mii bëgguma ma dem fa fi nga wax ne dama bëgg a jël réew mi te du fa jaar foofa nag fa laa pare pour jaar fa ak yow yow ngay def tout pour mu bañ faa jaar yow ngay def tout pour mu bañ a bokk. yow ngay def tout pour mu bañ a euh, nu ñu koy xatee décision de sistis génn nga waxoon ne dina di nga di nga ko respecté di nga fexe nit ñi respecté ko di nga fexe ñu jëfe ko décision justice boobu génn nga taxaw euh, indi sa ay sa ay euh, policier wala sa ay ah, gendarme mën naa maa wax ne sa ay takk der rek teg leen buntu DG ne leen bu bu buñ fi dugg comme si ñoo xam ne dañu jógee ni ñu koy xatee de nulle part. nga taxaw ne buñ fi dugg bu ñu am li nga xam ne mooy fiche de parrainage ci loo xam ne justice moo ne dañ leen ko jox léegi yéen ñaar kan moo ci bëgg a euh, dem élection wala kan moo ci bëgg a déstabiliser réew mi ki taxaw jaar ci yoonu justice ngir am li mu bëgg justice jox ko dëgg yow nga jiitam réew wax na euh, da nga bëgg euh, réew mi dal wax na da nga bëgg élection yi paisible wax na da nga bëgg élection yoo xam ne dafa jaar yoon. élection yi transparent nga wax loolu noonu yëpp élection ñu ne dem nañ ci parrainage première paaw élection yooyu nga commencé ko naxas nasaxal ci koo xam ne bu ñu jëloon soixante dix pour cent wu population moom la ñu àndal alors ci moment boobu sa candidat mi ngi wër réew mi fenn fu ne mu dem fa ci koo xam ne premier ministre la ay liggéey waroon ko fekk mu ngi campagne jamono bii fu mu dem ñu koy xalamala ko wax loo xam ne ñëpp xam nañ ne du dëgg donc faut arreté wax nañu wax sénégalais li nga xam ne moom moo am nañu wax li nga sénégalais li nga xam ne moom mooy dëgg nañu wax sénégalais li nga xam ne loolu lañu bëgg ci réew mi bu fekkee nammuñu élection ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy parti pouvoir wala président Macky Sall fekkee dafa doyalul ci nguur lay taxaw mu wax ko bëgguma élection am. wala dama bëgg a pousse élection wala dama bëgg a leneen nit yi xam ko mu leer ci bopp nit yi mais koo xam ne danga nga wax ne da ngay organiser élection élection yooyu première pas mi ngi nii yow bëggoo dem élection da nga bëgg jaar ci fitna mën na léegi bu fekkoon même si bu fekkoon dama bëgg a jaar ci fitna teg naa samay ngànnaay nañ dem ci yoon bi nga bëgg ñu jaar ca nga taxaw ne du fi amee nga taxaw justice àtte nga ne du duñ ko exécuter. pourtant agent judiciaire de l'État dafa defoon benn dafa euh, waxoon ne day désister ki nga xam ne moom mooy euh, dafa dafa waxoon ne dafay récuser ki nga xam ne moom mooy juge bi àtte woon dem ba benn moment mu taxaw ne bàyyi na ko sax defatu ko désister na nit ñi foog ne yéen kat yéen a ngi bëgg respecter li nga xam ne moom mooy euh, àttekat bi li mu wax mais tey bu ñu gisee li nga xam ne moo am démb am tey. dañuy xam ne da nekk ci ay plan avec sa ñu war a yaakaaraat euh, demaat ci ba tey ci atte boo xam ne mi ngi war a dox ci diggante ak Mame Mbaye Niang bi doxoon ñuy xoolaat atte boobu ndax nam jaare woon jaar na yoon donte ñu bari amuñu yaakaar ci justice nag ci ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bari amuñu yaakaar nag en tout cas yow mi nga xam ne yow yaa yilif justice su bu justice dogalee war ngaa mën a am honnêteté bu toll nii jëfe li justice dogal donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko indi tey euh, di sant bu baax di gërëm di jox dig daje beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah.